li nga xam ne lii moo ñu fi dajale muy initiative bi nga xam ne bii xalaat bi nga xam ne bii son excellence le président Bassirou Diomaye moo ko jël ci fan yii pour jël euh, bis bi di samedi premier juin def ko bis boo xam ne bii dana jublu pour seetal euh, réew mi yëpp réew mi yëpp yemul ci benn gox mais réew mi yëpp li ñuy def nii foo dem tey jii ci Sénégal ñu ngi ko fay def kon dañu koy rafetlu parce que jàpp naa ni ah, wér-gu-yaram mi ngi dépendre aussi ci foo xam bërëb bu set mi ngi dépendre ci bërëb boo xam ni bii wax dëgg yàlla ku fa nekk xam ni wax dëgg yàlla yaa ngi eh, noyi nooyi bu bu bu baax yaa ngi nekk ci eh, dund bu bu bu macha allah bu mucc ayib ndaxte dana ni ah, tilim. Euh, lu lu setul day indi weredi donc lor rek war naa tax ñëpp takku taxaw ci pour que loolu nga xam ne tilim boobu salté boobu nga xam ni baaxul ci wérgu yaram ñun ñëpp ñu ànd xeex ko li ñu gis nag tey ji aussi euh, dañ koy xaw a rafet duñ ko rafetlu parce que rafet am lu bari loo xam ni gis nañ ko ci dëkk bi nga xam ne lii te jàpp naa ni teyeef la parce que jël ndox sotti ko fu nekk jël mbalit def ko fu nekk wax dëgg yàlla doo ne citoyen la citoyen boobu des na loolu tax nanu na ñëpp ànd xam ni lii président décidé dafay loo xam ne lii ah, duñ ko defee wér yaram bi day gën a yaatu wér yaram gi day gën a sax te wér-gu-yaram dafa naan mooy lépp ku amul wér yaram amuloo dara kon wér yaram bi nag mu ngi dépendre ci loolu do gisee mu def journée boobu te kii ko fi jiitu defoon na ko aussi donc c'est continuité la continuité boobu nag yaakaar naa ni ñëpp tey jii la moo ñoo ci war a taxaw pour que li mu ci seenu bu bëggoo ci son le président de la république mu am ko am nañ ci yaakaar bu baax nag parce que waa Sonaget ñi nga xam ne ñii ñu ngi ci département bi ak ci commune bi ñu ngi ci góorgóorlu lu baax Assane Gueye moo nekk le département Amadou Fall moo nekk ci commune bi wax dëgg yàlla bi euh, nit ñi nekkee ba léegi gis na ni dëkk bi daal mi ngi changé il est vrai yaa di am na roq yu des yoo xam nii nag war nañ ci taxaw roq yooyu nag euh, yaakaar naa ni comme ni ma leen xamee si seen farlu si seen euh, bëgg liggéey seen fonk liggéey yaakaar naa loolu duñu fi ñëwaatee fii kii fan dinañ gis ni wax dëgg yàlla taxaw nañu ci liggéey boobu pour amal ko bu baax a baax en ka cas maa ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñii ñi ngi ànd ci liggéey bi di gërëm en particulier le sous-préfet de l'arrondissement de Diamniadio Ibrahima Diouf ah taxawaayam rafet na engagement rafet na moom danay soññ sax ci liggéey bi kon wax dëgg yàlla dañ koy gërëm di ko sant di ko ñaanal mais di gërëm aussi délégué de quartier yeeg imam yi ak ak ñëpp yi nga xam ne ñi vraiment ñi ngi jàpp service technique bi ñi ngi leen di gërëm brigade bi gisam seen taxawaay ñi ngi leen di gërëm ñi ngi gërëm son Sonaged bu baax à euh, travers euh, ki ko leen représenté fii muy Fall ak son euh, le responsable départemental Assane Gueye toujours ñu ngi jokkoo muy nit ku baax nit koo xam ne kii mi ngi nuy jàppale di ànd ak ñun bu baax ci liggéey bi yaakaar naa ni daal fii ki fan fii ki weer jam ñaajo

et euh, je pense que le traitement des ordures nettoiement bi c'est au quotidien parce que ku ci nekk mbalit yi ci kër yi lay joggé. mais buñ ko jëlé ci kër gi buñ ko sànni ci mbéd mi kër gi xam nga c'est privé mais mbéd mi c'est public ñoo ko bokk mais comme ñoo ko bokk mais dañ ko wara dañ ko wara ar, dañ ko wara nettoyer dafa wara set ba ku génn xam ni fii vraiment mën nañ fi doxantu mën nañ fi def lépp mais mu doon cadre bu set xam nga président de la république bu ko décrété ñaar mbir mo tax mu décrété parce que dani dañ koy bolé balé raxas manam fi nga xamantene bi amna ay canaux ñuy waajal fi ñu wara a drainer ndoxum taw mek yoy ñu kiré ko parce que nawet bi ak tabaski gi moy justifier opération yi melni mais buñu togué defuñu dara li fi nekk kus néew bu tabaski jàll day yok kon nañu anticiper pour fexé fep foo xamante ne mbalit ma nga fa ñu dindi ko ànd ko nit ñi fep canal nekk nga xamantene bi dafa wara a ndoxum taw hein, bu amé souf wala mbalit ñu dindi ko loolu mooy li waral opération boobu tay moo tax ñu ñëw ànd ak nit ñi point yi ñu choisiroon mooy marché bi ak li ko wër gis nañ ko gis nañ ci endroit yoo xamante vraiment la fa nekk jéggi na mais loolu ay ay ay machine ñooñu ci mën a jàppale pour ñu mën ko dajale ak waa Sonacet ñu génne ko moo tax tey fa lañ commencé lancement bi mais donc fii ak fan yi ñëw daañu dégager la fa nekk ànd ay pelle mécanique ay ay ay ay ay ay benn yoo xamante dañu ko génne génne génne ci dëkk bi mais loolu waruñu ci yam kese parce que setal dafa war a nekk suñu habitude chaque jour ni top toppatoo suñu yaram noonu la ñu war a cadre bi nga xamante ni bii ci la ñuy ci la ñuy yëngatu parce que fi ñu nekk bu setul mënuñu am wérgu yaram gi ñu gi ñu soxla kon ñi war nañu fexe ba ñoom ñi bañ di di génne mbalit mi mbaa buñ ko génne am fu ñu ko teg ñi ko war a ramasser bu ramasser ko loolu tax fi ñu dëkk mu set ba yi nga mi ngi am ci ci ci ci xale yi ci mag ñi ak ci ñëpp je pense que lu mel bu amee nit ñi war nañ ci jàng leneen que nit ñi war nañu am ak cet ci seen dëkk ak seen n'est-ce pas moñi permettre ñu xex lu bari lo xamantene bi amna ci wàllu mbënd mi am ci ci dëkk parce que buñ ko nettoyé wul mais malet mi mais day yok ndox mi di ta li waron dem mënatul dem jàmbat gëna bari a gëna bari kon lool nak moy moy li sabab bi kon na ci ñëpp and euh te ñu fexé liko ko ni ko président bëggee ñu doxale ko noonu waaye fépp fu ñu jaar tam ba défar ko ba paré nañu dimbali rek ngir yalla buñ ko yàqaat sinon nak dinañ egg foo xamante bi il faut que ñu ñu ñu teg nit ñi koy def ay daan bu ñu leen xamee parce que mën ñu defar ay place yoo xam ñëpp ko bokk ba mu jag kenn jógee fële bàyyi këram bàyyi buntu këram def ko def ko def ko euh, def ko ay mbalit mais ma ngay lor keneen ki mu dendal pourtant lu tax surtout ko buntu këram wala buuru këram mais feneen la ko transféré loolu aussi dafay interpeller conscience nit ñi ku ci nekk sa bopp je pense que nit ñi war nañ delloo seen xel ci lu ci lu bari cadre bi ñun ñoo ko bokk kon ku ci nekk li nga coo def pour mu set na nga ko ci def may gërëm bu baax monsieur le maire ndax moom aussi vraiment lim ci man def na ko ci mi ngi sensibiliser ay moyens mi ngi koy mobiliser lii ak désencombrement bi ñu commencé ñoo benn la donc lii mooy continuer lii parce que fi ñu désencombré lu mel nii moo fa nekkoon dama samedi ba le parce que ñu fa jëlee ci ci mbalit 10 heures lañu xëy ba 19 heures 30 di génne mbalit ci dëkk bi ak dégage yenn espace donc lii day continuer continuer la buñ ci continuer wéyee bu nawet bu ñëwee mën naa am gàll gàllankoor yi du bari wala loraange bi dina dina néew mais bu ñu ko seetaanee mbalit mi bari kanu yi fatt ndox mi du dem mais suñu bopp lañ koy def parce que lépp suñu kaw lay këppaat kon nag opération bi président woote ñu ñëpp nañ ci ànd ku ci nekk li nga ci war nga def ko ci muy imam muy délégué de quartier muy muy muy waa Sonaged muy képp koo xamante ni bi Diamniadio nga nekk mbir mi ku ci nekk da nga ko def sa mbirum bopp kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ca bi sii di ñëw ñu gën a waat pour fépp foo xamante ne bi déchargement nga fa ñu jëlee ko fa te kiir askan wi ci ñuy yóbbu mbalit mi fi nga xamante ne fa lañ ko war a yóbbu. jeudi. waaw yàlla aussi bon maire mi ngi koy fàttali opération bi ñu kon commencé woon jeudi lañ koy continuer pour que ñu nekk ci voie publique aussi ñu ñu ñu génn leen fa parce que loolu ak lii benn la. parce que nit ñi il faut que ñu organiser leen ku ci nekk booy def activité fa nga ko war a defee bu dee marché la yamal ci marché bi bu dee artisan nga ut nañ site boo xamante ne bii mécanicien wala menuisier wala tôlier wala leen fa lañ leen war a jagleel kon kuñ ci ni jógal ci mbedd mi nga nekk. nga la waay bu ci indi ben jafé jafé na nga dem ni len won len fi ngeen may tek ñu tek la fa bu ko defé jamo ñun ñoy kon mbir mi wax dëgg yàlla buñ sonné ni c'est parce que ñepp ko bok lu ñepp bok nak ku ci nek da nga xam fan nga ci yam def ci la nga ci war def bu ko defé jamo ñu ñoy en tout cas ma ngi len sant wax di len gërëm